Euh, Zoom, salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum chers téléspectateurs, salam alaikum les amateurs de la diaspora du NU, le monde lutte en entier du les amateurs, les lutteurs en activité, les anciens lutteurs du NU, les ménagers, le CNG, l'association des amateurs de lutte frappe du Sénégal, nous les NU Bar de l'Inziar, de l'Indiadjafal, du NU aussi euh, les promoteurs, les anciens lutteurs, les lutteurs en activité, nous les NU, de l'Inziar, de l'Indiar C'est une émission d'octobre 21e numéro avec Ndiak Albert fii HLM, donc bi TV. Euh, le dimanche 3 mars 2024, euh, ben, nous avons à euh, Khalambas. Khalambas, c'est un village qui se situe à peine euh, 5 à 6 km de Ganyay. franchement, il faut voir Lamadjou Mak, Lamadjou Rey, Lamadjou Am Mana. Euh, au finish, ki ñuy wax Modou Diamtieri moo ko mujjee jël poids lourd ci Djidiack bu Djilas di nuyu di encourager Djidiack Djilas bu baax parce que mbëru poids léger la mais yenn saa yi day ci poids lourd mais d'habitude lamb noonu lay demee mais qui bëri raw ko du day yenn saa day bind poids léger yenn saa tax day bind poids lourd euh, parce que gis nañu olympique kérok euh, euh, lambu xalambaas bale xalambaas pin law presque poids lourd la bindoon te demoon ba demi final donc kon lamb non la ñu ngi féliciter djidjak Djilass bu baax di encourager aussi Modou Jam Thierry bu baaxa baaxa baax mais parce que mom itam franchement bokku na ci révélation yi daaw poids léger la doon def mais yéen ren dafa yegg

Euh, làmb jooju nag liñ ci mën a wax rek parce que émission Njoktoor li ko tax a jóg mooy euh, li ñu gis mu jaar yoon wala mu ñàkk jaar yoon ci làmb ji loolu la ñuy wax pour fekkante ne li jaar yoon la ñuy organiser làmb ci kanam buñ ko gisee mën na euh, roy ci loolu bu dee jaar yoon nag ñu loolu ñu mën ko moytu pour ñi nga xamante ñu am làmb ci prochainement. donc làmb ji xalambaas guddee bi la ñu xaw ca constaté dafa guddee presque làmb ji ma ngi tas ay 4 5 heures du matin loolu franchement. Euh, tax na ba amateur yu bëri mënatuñoo seetaan mënatuñoo seetaan ay mag ñu bëri aussi mënatuñoo seetaan lamb côté boobu zone boobu parce que day guddee day guddee tellement day guddee aussi de trop xam nga ki nga xamante dafa yor ay jur wala mu yor ay xale ci këram bëgg a eh, dox lu mat presque deux ou trois kilomètres wala sax mu dëkk ci dëkk ba bëgg a bàyyi njobootam bàyyi juram dem seetaan lamb cinq heures du matin buñ ko ginnaawoo bu ñëw lañ lay wax donc loolu tax na ba ñu bëri bëggatuñoo mënatuñoo seetaan lamb euh, en plus aussi délégation yi man dama gis ben geste bo xamantene franchement dama ko rafetoon gis nako ko Thiombi Sindiane gis naa aussi Xalambaas Pinlaw euh, délégation yi day xawa bari euh, té délégation bi ñu bëree eh, franchement fay euh, am lu muy fay am lu muy répercuté délégation warul warna am parce que bëri simple amul bëri simple amul sponsor amul sponsor donc tëggkat lamb yi ci délégation la ñu la ñu tudje lamb mais nak euh, franchement bu bu ñu jël trop de temps aussi day xaw day waar parce que les amateurs ñoo sponsors bëri simple les amateurs sont les sponsors de la lutte simple parce que nous sommes laa la wax ne ñoom mooy ñooy dooleel ñooy lamb donc kon franchement l'ol aussi ñi organisateur yi war nañu di soral au moins les amateurs war nañu di soral amateurs yi bu baax a baax a baax a parce que tey bon, amee lu presque cinq délégations wala quatre délégations ku ci nekk délégation bu nekk bu duggee am quinze minutes voire vingt minutes ci biir géej l'ol c'est à revoir loolu war nañ ko xoolaat donc man bëgg na zone boobu noonu roy ci coom bi délégation nañuy teel ñëw teel a joxe li ñuy tax joxe teel a waxtaan balaa làmb ji du commencé bu ko defee bu commencé dootu am taxaw dootul taxawaay te ñi nga xamante ne aussi ñu organisé nañu wut kenn nit kese kuy wax rek benn nit wala ñaari nit ñoo xamante ne ñoo ñoo yore parole bi parce que ku ci nekk aussi ñiy indi affaire bi délégation bu buggee am lu mat 4 wala 5 personnes bu waa dëkk ba aussi bugg am lu mat wala 5 personnes bu wax non kon dañuy guddee de trop loolu bokk na ci ni nga xamante ñooy lamb yi donc fofu dama fay interpeller le président Mbaye Ngom na ci def le tout pour nga xamanteni lamb dina xaw a gaaw a au moins lamb di commencer 20 heures balaa minuit wala 1h de matin mu jeex bu ko defé ku nek mëna doxi soxlam léegi gis ko xam sax day joggé Dakar dem seetaani village wara joggé fofu foofu ñëwaat pour xey liggéey té doo ko mën parce que franchement amna heure yo xamante bo fa joggé pour nga ñëw fi day xaw day xaw day waat donc loolu jëlone xalambas dimanche toujours le 3 mars ñu ñëwaat terrain terrain gi Jax 3 millions de francs 3 millions aussi ni la won ñetti catégorie la euh, poids léger ñu 1 euh, million 1 million 500 poids lourd bi 1 million donc euh, poids lourd aussi au finish ki ñu wax Paul di Paul bu baax di aussi man dama ne xalé yo bu amé amee amé ñu amé jappalé hein franchement xalé yu nar am avenir ci lamb lañu ñu nar am avenir ci lamb lañu Paul Mante ak Ngagne Sen té ñoñu sax damay wax né nañu fexalé tout dugg ci arène bi mën am ay combat parce que euh, carrière bëri simple soriwul soriwul yagul carrière bëri simple yagul li nga mëna def carrière ci bëri dóor euh, fekkul bëri simple bi donc bëri simple nak bu université bi ci lañu jaar pour mëna a dem ci bëri d'or bi mais franchement

palpé nit ñi ñu dug à l'heure mais franchement ben réclamation la fa gis ben ki la fa gis ben réclamation ñu ko wax recours xam nga recours bokay mom dafa am lu mu ëmb mais réclamation bobu diggante jégaan la won ak ak euh, Assane Sène franchement ben euh, verdict arbitre sax la ñu mujj la ñu mujj la ñu la ñu mujj la ñu mujj la ñu mujj euh, li nga xamante mom moom la verdict joxone comme Assane Sène moo daanoon ah, jégaan gis né ben Assane dafa def 4 appuis mais franchement fait que euh, gars yi visionné cassette bi xol ne 4 appuis amul ñu maintenir victoire yi donc fofu mën nañ wax ne erreur amu fa erreur amu fa gaa euh, làmb ji neexoon na moomo wam no moomo nga moo fa moomo nga moo fa nekkoon euh, franchement Maodo du match mo fa nekkoon tegul lu neex mbayang lu mboy lu neex muy làmb jo xamantene franchement làmb ji àla daw la momo moo fa nekkoon ah momo ngom la won ak ak ak mbay lu ma ah. franchement animation bi neexoon na lool waaw animation bi neexoon na woy tëgg bi neex na woy bi neex na

Euh, ben ñaari gala yi mënuma jeexal émission te waxuma ci les deux gala fi lañ doon nek de casse euh, le CNG ak Mbaye Kalom Baga Mbaye Kalom suñu confrère la ben on a rien à lui dire mais les promoteurs de la lutte simple jot pour nous autour d'une table pour mën a waxtaan ba am consensus parce que franchement euh, mbir man dama japp ne mbir bokoy téré bokoy bagn da wara daa fekk yow doko def ah hein, doko def parce que ci biir saison bi ni li moy deuxième fois dimanche bi ni moy deuxième fois ñaari gala di am Grand yof ak terrain gal bi té bu ngeen xolé Grand ak terrain gal bi distance bi franchement gàtt na lool na parce que bu moté 1 km 1 km, 500 ci la ngeen xol arène nationale digënd arène nationale ak terrain gal bi war def 5 à 6 km. donc euh, euh, li mu saint CNG moo tax CNG nak ben duñu ñu cautionner li def parce que CNG dafa war fi nek pour arbitrer CNG dafa nek pour développer la lutte CNG dafa nek pour encadrer les promoteurs les lutteurs donc aussi warul ñew pour jéem a euh, nasaxal ben promoteur mais nak bo xolé man dafa am lo xamantene man duma ci and man en personne ah nag ce que je dis nak ça me regarde moi en personne ça me regarde man personnellement promoteur yi la li simple jot nañu toog autour d'une table voilà CNG kum fi tasaliti bu ci ken wax parce que promoteur mënu ndaje seen biir ba paré ne CNG du tase ak benn promoteur CNG ñetti façon la mu la wara a tëgg muy drapeau chef de l'État tourna CDAO ak ki nga xamantene dafa nekk cas force majeure waaw koo xam ne jàppoon na lam dem ba dernier mois mënatu ko tëgg wala date boo xamante ne nit war nañu ko jël te jëluñu ko kenn moo ko mu jël ko wala sinon les mercredi waaw mais nag promoteur yi bu ñu daje seen biir ah non man dama jàpp ne CNG bu tete kenn kenn warul wax parce que promoteur yi gis ngeen combat bi ne man dëgg ma kenn ku ci wax bu diggante euh, les anciens gloires et les luttes en activité de Fatick ñoom ñoo tëgg dimanche bi di ñëw arène arène nationale arène Adrien Senghor du Metz teg 1 million bari production di teg terrain gi teg une mise de 2 millions 500 dëgg ma kenn ku ci wax waaw

ñi abonné nañu aimé di partager parce que partage bobu aussi gars soxla nañ ko lool. Euh, tay nak euh, ben euh, annonce lamb annonce lamb presque ñaari lamb lañ am ñu annoncé ñetti lamb du moins Mbelou Ngidj c'est du 6 au 9 6 au 9 mars bi ni nek ni 2024 mise ba fukki fukki nak la poussière 50 000 lañ euh rawgadou ñu tek ñaari hmm ñaari nak ak 15 000 poids léger ñetti nag la ak 25 000 su ma euh, poids lourd que 5 nag ak 30 ak 30 000 francs moom ngom mo fay nag ak euh, Mbayang Loum am invité de marque muy invité bu reuy muy reg reg franchement dina fa tew pour ñëw bëggal amateur ak supporters yi euh, le 10 toujours 10 mars 2024 terrain gal gi bari production moo fawtee tegal mbër yi 2500 le 10 mars toujours les anciens gouloirs et les deux en activité de la région de Fatick ñoo tegg